mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yenenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi nga xam ne moom la ñuy fàttalante day laal lool pas-pas pas-pas pas-pas ñaar la mooy gëm yàlla ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak safaanam ba mu am nag bu nekk ci seen diggante bi ma mujj wax ak bi nekk ci seen diggante bi ma njëkk a wax mooy al imaanu billah safaan ba mooy al kufru billah bi nga xamante ne moo ne ci diggante bi mooy ashirku billah yàlla nañu ci yàlla musal ci doxinu jamono léeg-léeg nit kaf ba ne nit ki yow kaafir nga walla mushrik nga ngir ab jullit bañ a dox jëm ci ñaar yooyu benn te toog ci bi ma jëkk a waxe mooy al imaanu billah ak yami àndal yépp day mat a ràññee lool li wax ko nit di doy waar lépp fexe ba niru ko moo ko yées yal nañu ci Yàlla musal ci wax ji nga xam ne ci lay waxe nii gëm yàlla ko safaanum rek moom la wax ji gën a ëmb dañ naan kii ku gëm yàlla wala gëmul yàlla rek diggante bi nag ba fa nekk léeg-léeg nit gëm yàlla di ko jëfandikoo te du ko yëg di ko jëfandikoo te du ko yëg bu ñu leen bëggee ràññee ñoom ñaar mooy lan imaan moom ñu baree bari bu ñu bu leen leerut benn par benn nit soo ne ko mu'min nga mu daldi wuyu léegi yow mi ku gëm yàlla nga mu nangu ku gëm yàlla day ànd ak yami àndal yépp yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rusulihi ba aaya ba ak waaye safaanu imaan mooy al kufr mooy ak weddi bu ñu ko bëggee leeral moom leer na nañ mooy koo xam ne ci pas-pasam daf caa dàq amul suñu borom gi sax suñu borom mi yàlla mii nga xam ne ñun moom la ñuy jaamoo mu wax yonent bi nu ñu koy jaamoo am nañu dàq ak amam loolu mooy kufru dëgg moom mooy ak kéefar benn ñaareel ba melokaan yi nga xam ne suñu boroom moo ko moom arrahman arrahim almalik alqudus alsalaam almumin almuhaymin ba mu àgg mu teggi teg ne yan ci yàlla musal waaye lu ñu yàllaa ko bindit moo ko defar mu sàkk keneen ca pegg ba layal ko waaye lu ñu ne wii tur yàlla dong moo koy moom it léegi tey mu jéem koo tuxal xawma lu mu fay teg nag waaye du ko gëm rawati nag ndaw yàlla doon yónni moom koo ci tudd mu ne waaye ba wax ja doxe fa nax saay waaye yi nga xam ne it dañu leen di gëm yépp al imaanu bil gayib gëmu ca benn lu ci ne daan la indil ma firnde te bari na yoo xam ne des koy gëm te desu ci mën a am firnde ci misaal bu ne nit ki diw mooy baayam day judd rek ñu di ko wax waaye mënu caa am benn firnde te ñépp koy gëm mu gëm ko mu gën leen ko gëm di ko tiitaroo naan doomi diw laa kon li ñuy gëm te mënu si saa teg loxo mënoo koo wane dana gàññ waaye waaye amuk yàlla gi moom ci lim yilifeeg ni moomeeg ni mu bindeeg lépp daf koy tuxal sànni fële léeg-léeg sax mu dem ba àgg ci di jéem a daganal yàlla araamaloon loolu nag balañ cee sori am nañu gis xaat wàññeentam wàññeenam bokk yi am na ci àdduna bi ñoo xam ne seen kilifa daf leen defal fatwa fatwa mooy loo xam ne seenu xam àggu ca woon xamuñu woon nuñ cay def muy leen def leen ci nangam ca doggu ca mu jaral ku nu lekk am na ko seen kilifa daf na leen woon fekk ñi nga woon ci jamonoy xiif xiif bu metti boole kook fitna mu def fatwa ne leen lekk leen lu ngeen gis lekk leen ko ba mu des nit rek bañ demee ba génn ca fitna ja ak xiif ba it donte foofa pas-pas bu wér di islam mën na faa ànd ak ñoom fa mën a turra gayra baaxin wala aadin fala isma aley innama xarama aleykum almaytata waddama wa lahma alxinziri ba àgg ci fa mën a turra gayra baaxin wala aadin fala isma aley waaye ñoom dañoo dem ba fitna ja dañ xiif ba dañ ñu wéy ca lañ doon def di lekk lépp lépp bay lekk yi nga xam ne tere ga ko suñu borom tere tegiwul fenn lu njariñul nit ki bokk yi kuy dem bay lekk jaan di lekk njugub njugub lu ca ne luñ koy luñ cay lekk xanaa dañ kumpa di lekk ay gunóor rawati sax di ko def ci anam gu metti di leen lekk te fekk ñi ngi dund waaye tam lañu gis wàññan ndax am na wéradi guñ naan rab yi ñoo koy jox nit moo ne bu ñu bàyyi woon rab ya mu ñu ne fañ nekk nit fa nekk fa mu nekk fa mu war a nekk mën nañoo bañ a laalante bay wàllante jàngoro kon pas-pasu iman bu dëgër tàmbalee fi ñu la tàmbiloo yem fañ la yemloo gis nañ xaat lu ko wuutale ak kufru gu wér gu wér péng goo xam ne dara raxu ko dem bay daganal loo xam yàlla da koo araamaloon bari na daal ay melokaan yoo xam ne ku koy dund dañ naan kii kaafir la ci kufru la nekk yàlla nañu ci yàlla musal moo tax yàlla ne wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axiri faqad dalla dalalan baida koo xam ne daa taxaw fee iman taxaw fee mu taxaw fële tàmbalee ñàkk ga gëm ak wedd gu mat sëkk yàlla amuk yàlla gi ci boppam ku ko xas ba tuxal tuxal na lépp lu ñuy gëm ndax lu nekk dañ laa war a dañ caa war a war mën a firnde boo ko ne woon nu la sa waajur amee du ko mën a firndeel ya ca topp topp ca moo tax mu ne ñooñu dëgg dëgg ñooy dund kufru dëgg nag ndax mbooleem li yàlla bind jullit bi di sa gis yàlla ñoom dañ koo tegg teg fële waxaale wuñ nag ëllëg daa am ëllëg moom waxuñu ay waxam nee na su ëllëgee danañ xam ne kañ fay fekk mooy yàlla ndax yàlla du leen peeseel dara dañuy wàcc rek mooy leen jubal leen fële te duñ ko sañ a bañ ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fa xabitat amaluhum fala nuqimu lahum yowma alqiyamati wazna kon boog bokk yi ak kufr kenn waru ko wax ab jullit mel na mag mu nekkoon fii Tuubaa Sëriñ Abdul Ahad Mbakke am na xew-xew bu amoon fa xew-xew ba amee woon kilifa gu mag jóge fa ñëw fi moom ne ko dama defe ne ku jógee barab sàngamam lu ma wax rek dëgg la suñu blaat ne ko waaw waaw waaye nag sëriñ bi yow del wax rek lu ma wax dëgg lay doon waaye lu ma dégg dëgg lay doon moom kenn yàlla mayu ko kenn kon baatu kii dañuy kafante di ko wax am ñu joxañ aw naan leen yi ay kuffaar lañ loolu ëpp naa wax nit ki ndax la ci tax a bokk kenn ñaanul ñu dala ko wax waaye am na bu ma tuddoon léegi imaan leer na al kufru leer ci tënk gu gën a gàtt mu neex xam li dend ak moom tudd shirk moom moo yées ndax mushrik bu nekk nee nañ kaafir la waaye doonut ne kaafir bu nekk mushrik lay doon kon mushrik moo yées kaafir shirk di ko dund moo yées kufr shirk mooy lan mooy yamale yàlla képp ak mbindeefam yi maanaam boo tegee yàlla bu ñu leen yàlla ñu daal ba nga nangu da ngay jëli keneen teg ne mook yàlla ñoo maase ñoo tolloo mbokkama moo koy wéttili moo koy dimbali ba li nit di defal moroomam jeex diggante kooka suñu boroom subhanallah yàlla nañu ci yàlla musal wala boog léeg-léeg nit ki juum juumlu wooyee benn ci melokaani suñu boroom yi nit loolu yàlla xeebu ko de xeebut yéemut yàlla xeebut yéemut misaal suñ Abdul Xaadir mas na yónni ki nekk koo fa gis mu ne ko feede samat rek a fa nekk mu ne ko déet Abdu Samat moo fay nekk waaye samat bët du ko tege ba tur yooyu jeex Karim ak Samad ak Wahab ak yooyu yëpp pas-pas bu dëgër da ngay jiital Abdul Wahab wala Abdul Samad wala Abdul Karim loolu la jàngale foofu ne Samad kay moom bët du ko tege huwa allahu ahad as-samad as-samad huwa allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kon mooy fab yàlla teg ko ne yamale ko bindeef kepp loolu nag ku ci dugg day daal di tàmbalee bëgg a wutal moomeelu suñu borom gi rububiya rab ku ko cay dimbale koo xam ne bu fa yàlla nekkul moo fay nekk yàlla ñu yàlla musal ci bopp pas-pas moom la nit ñëw ci suñu mag bi ne ko gannaaw bu yàlla ak yonent bi wéyee mu ne ko ah mu ne ko yow mii mu ne ko déedéet su boobaa kay du ma fa ne wala ne lii bu du woon ak diw du sotti moo ne aka bari ñu koy wax te seetlu wuñ ko bu du woon ak diw manis naa wax nag ne yàlla de moo ko sottal jaarale ko ci diw da ngay dégg sax ñu dem banaan bu yemal xayaamaa lu fa diw amul du ma ko soxla moom du ko soxla te fekk yemal xayaamaa daa ñëwagul rek jàmm xew rek waaye léeg-léeg nit ki lu tuuti ci aw yaramam loo xam ne bu ñu ko dindee du tee muy dund ci misaal bëñ buy metti rek bëñuy sew yi nga xam ne duñ yëy duñ yàbbi ne raw ñetti waxtu ci guddi li muy jëkk a def moom day dàq amuk ki mu doon wax moom nan moo jàppale yàlla waaye day xool ba xam am na doom yu yu ay doom lay mujj yaakaar duutu yaakaar ni sax waaye ay doom doom yu sew sewaan yi comprimé yi lay tëb wutal yi benn ba xam dana ko seddalam déet bu téyee nelaw bu xëyee wuti ab dentiste bu ko nee tëddal mu tëdd bu ko nee saqatal mu saqat bu ko nee jaaxaanal mu jaaxaan nangul loolu mbindeef ba noppi yàlla mi bind bind ko bind la jàmm am rek nga ne mook diw yàlla ak diw ñoo ànd ñoo bokk liggéey bi loolu ñu tuddee shirk dëgg moom lu mat a moytu nag la ndax yàlla nee na ku wutal koo koy dendaleel xañ na la aljanaam ba noppi xañ na koo ko aljanaam xañ innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu alayhi aljanna te ku demoon àjjana xam na fa mu jëm yàlla ñu ci yàlla musal daan ne tey ngeen a jàpp ci yàlla mi nga xam ne mooy tegee mooy teggee moom moom boo wutalee yàlla kum dendalit léegi tey nga fàtte ko te bokk yi kooku ma wax léegi mooy aaya bi may bëgg a jàng rek fi mu toll nii suñu demee ba dentiste bi mënu ci dara wekke na bañ ba texut teewul fam bañ ba tëddoon di metti di wéy fu lu ñu yóbbu ko fa mocc kat mocc lugg kat lugg ku ne xam na ne metti di wutal rek day gën di neewal nit ki doole ndax duutul nangoo lekk waaye ana lu ñu mujj wax demaat ci yàlla mi ko bindoon rek yàlla mu wutal moroom day fàtte ñépp ne ah lii yàllaa ci des moo tax bala nit a àgg foofu war naa wàññeeku walladina tadcu dalikum allahu rabbukum lahu lmulk walladina tadcuuna min dunihi maa yamlikuuna min qitmiirin in tadcuuhum la yasmacuu ducaakum walaw samicuu ma stajaabu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum yow la yow la yow ak yow la ak yàgg yàlla nee na jàmmay xew rek waaye bala dara di métti yee la xaaju guddi bu ñu xëydu wax ko ko mën na ko ba ñu yëg moom moom ma nga nekk foo xam ne ma nga wël sànguwaat ba dëgër feddliwaat ay nelawam kon boog nee na bu ëllëgee soo naan ee diw ee diw ee diw te fekk lijjanti koo gut du am ci yow soxla te bu lijjanti ko it fa muy jaar jàll boo jàll gut du ngeen gisante daan na nag kii koy wax ak yéen mooy tabaraka wa taala moo xam lépp te leen lu nekk boo ko bëggee xam da ngay xam da ngay dem ca ka ca jaar ba jàll wala yunabbi'uka mislu xabiir laa yunabbi'uka mislu xabiir dëkk ba mus ta dem kane fa laa jóge nii lu mu la ca wax te gëmoo ko mënoo gëm keneen kon buñ ne diw doon na ci yàlla dara lu dul ab jaamam da ko war a weddi balaa la yow di am ndax la yoo ngi ñëw ci kanam wa yawma naxshuruhum jamian moom yàlla moo ko wax thumma naqulu lilladina ashraku ayna shurakaaukum alladina kuntum tazamuun nee na bis bu dajalee ñëpp danaan waaw ana gaaya faroon ana ña ngeen doon tudd di ma tudd kuñ joxañ mu ne man kay du man man kay bu ma joxañ su ko defee nag poñeente daal di am kon kii kaafir la wax ko ab jullit dëgg-dëgg lu garaaw la waaye li gën a garaaw mooy ab jullit jaar ci yoon wuñ ko koy waxe naan kii kaafir la wala kii mushrik la bu fekkee kaafir mooy ku wedd yàlla ci boppam amu yàlla gi ni ki gëm yàlla di gëmee noonu lay weddee moom lépp waaye mushrik nag daa teg ab tànkam fii ci biir imaan ba noppi yàlla mi mu gëm muy kenn ki ñu war a gëm te yàlla yonente bi jàngale ko muutal ko ku koy dimbale wala ku koy wettali te koo xam ne ku mën a waxtaan ak nit ñi la te bari xam-xam lool rahmatullahi alayhi daana wax ne yàlla bi muy bind li muy bind kenn nekku fu woon ku koy jotali tournevis wala nga di ko jox pont yi wala nga di ko jox martu yi loolu bind bu gàtt la ci xam dund tawxiid xam ne yàlla kenn defalu ko dara dara suñ mag bi jàngal na ko ci ab téeréem téere yi nit ñi bari di ko jàng te suul saxaawal te suul suba ne yii la nit di jàpp buñ koy wax yàlla ju mën a doon yii lay jàpp yoo xam ne yii moom ku ñuy wax yàlla mënu koo ñàkk ba ca gën a simple mooy moo fi jiitu te kenn fekku fi kenn moo fi mujj te du fi des ak kenn di ko lim ba agsi ci ne yii mu ñuy xéewale sax waru ko ci ñun da koo neex rek da koo soob képp muy taw ak a saxal ak a ñoral waaye ku munta fekk yàlla ci loolu baye boo nga doon as njaamam te ku nekk nga joxoñ ko mu mu doon jaamu si yàlla kese lu ko mooy layoo mën naa am ëllëg kuntum tazaumuun zaama ni ñu koy tekkee mooy diw nee na yeey nee na yeey moom ki nga koy wax du ko gëm diw nee na yaay nee naay zaama zaama allazina kafaru an lan yubaasu qul bala wa rabbi la tubaasunna thumma la tunabbaunna bima bima amiltum wa dalika ala allah yasir moo tax ñu ne mushrik boo gis rek dugg na ci daayirab kaafir yàlla nuñu ci yàlla musal te am na ñu ñuy joxoñ naan leen ay yéefar lañ doonuñu ay yéefar alxuraan nee na du ñuy yéefar mooy ñu tuddee ahlul kitaab ahlul kitaab nag nit mën na caa bokk ba ne ba noppi nekk mushrik mooy ñi nga xam ne nangu nañ amuk suñu borom gi gëm kenn ci ay yonente am waaye kaafir dëgg moom mooy koo xam ne gëmut yàlla gëmut benn yonent waaye mushrik mën naa nekk ahlul kitaab yàlla na yàlla musul ab jullit ba muy dugg ci daayira mushrik bay dugg ci kuffaar yàlla nag nee na ku fexe ba dugg ci daayira kuffaar yi dëkk na ko bëre te yàlla moom ku ku léw ku léwtoog moom ku bëgg a léwtoog moom na nga xam ne doo ci jële ndam mukk xaw mu ñoo daan ba agsi foofu waaye doo ko jàll moom fenn ba mbër mu mag ma ñëwee ci suñ mag bu fekk ko njaareem mu ne ko looy noo tudd mu ne diw tur wuñ xam mu ne ko looy liggéeyee mu ne ko damay bëre bëre moom ku dégg wolof da nga xam lu mu doon mu ne ko ñi nga daan ak ñi la daan ñu ci ëpp mu ne ko kenn mësuma daan ñu nodd sëriñ bi jaar ci làkk ba bu ñu ko defaloon nga xam ne buy julli ci lay jaar ndax bañ nit ñi dal ci kawam njaboot ga ñoo ko fa defoon bañ nit ñi dal ci kawam làkk bi daa leeru permi ba ci pénc mi mu ñu def ko beneen bu ko wër ba ca jumaa ja jàkka ja bi kooku tolleeg moom nag di xàll sëñ bi jàkkaarloog armée li njaareem yi ne ko nga ne musoo da kenn musulaa daan mu ne ko déedéet mu ne ko ñu tëdd fee ka leen daan nga defee ne yàgg moom ku man mu ne ko dimbale ma de bu ma léewtoog moom mukk de kooku kay xalaatuma léewtoog moom ñaanal ma de bu may bu ma xiir mukk ci ma di ko dëkk bare te yàlla bu ma jàgg di róor ni may def gaay loolu tam bind bu leer nañu la foofa jàngal na ko fa tawxiid moo ne am na ñuy wax kuy bëri naa ko li feeg yaa ngi ànd ak man doo dégg muñal waaye kooka bu bu ñuy bu bu ñu jëlee way juru mbër ma nag bu mbër ma jooy lu mu koy wax muñal lu mu yàgg-yàgg bu fekkee bokk nañu fi yàgg dañ koy mujj daan muñal moom faw kuy daan di ko dégg ndax Sëñ Tuubaa leeral na ko sax nee na ko ba bañ a daan da ngay bañ a bañ a ngay bañ a bëre kenn moo tax dëkk gi kuy dund kufr ak kuy dund shirk di bëreeg yàlla mooy aayaat yi suñu borom di wax ne yuriduuna an yutfiu nuur allahi bi afwahihim dañoo bëgg a fay leeral suñu borom ci seeni gémmiñ lamp yii xew léegi sax toog fa di ko ëf ak sa gémmiñ ku koy def di naan kii daa wérut leneen a koy fay lu bokkut ak ëf mu fay waaye yaba allahu wa yaba allahu illa an yutima nuurahu walaw kariha alkaafiruun foofu kufr la ci la fi jëfandikoo daane huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diin alxaqi li yudhirahu ala diini kullihi walaw kariha almushrikuun fi may jeexale mooy nit ki dana nekk musrik ki sa pegg nga xam ko muy jëfandikoo yii ma wax nii ak yi ma waxut yépp wala muy jëfandikoo ak kufur nga rafetlu ko ba tudd ko sax mbokk naan suñu mbokki nangam yi loolu it ku leen ko nangul da ngay dugg ci seen biir daayira boobee alquran nee na ñu roy leen seydina ibrahima ak ñam àndaloon ñoom dañoo taxawoon fee nekk ay muminuuna saadiquun ne képp ku àndutug ñun ci lu ñu nekk da ngay dem ñu dem te li ko tàmbalee tey ji ay noonu la ñuy doon ba faw ba ba ngeen di ñuy fekk ci suñu pas-pas bi kon maslaa amu ci te bokk yi Seydina Ibrahima moom i way juróom yi ko jur pas-pas bee la yoroon id qaala ibrahimu li abihi azara atattaxidu asnaaman aliha inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin ayaat yuy tege ci Seydina Ibrahima ku dem ci suuratu Maryam am na ca li ma taabudu ma la yasmaa wala yubsir wala yuxni anka shay'a ba la ko ca fekk fekk ko ca waaye ñoom njëkk a dogool ñoo ko gën a jege moo tax mu ne roy leen Seydina Ibrahima ak ñam àndaloon ci pas-pas bu dëgër ku ci bokkut ku ko bokkut ak yéen def wax leen la ñoo ña waxoon qad kanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qalu li qawmihim inna buraau minkum wa mimma taabuduna min duni illahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum aladaawatu walbagdaau abadan xata tuminu billahi waxda yal nañu yàlla musal ci kufr ak shirk ak ku koy def te defal ñu dégg topp te musuñu seytaan nekk bakkaam yaxfiru llahu lana wa lakum wa lisaa'iri lmuslimina amin